mais leneen tam loo xam ne andi na polémique fan yi muy mbirum Iran Ndao gis nañu ko muy def sortie génn def na sortie fii daal dina jong naa ñaari yoon bañu ne sax rafetul kàddu yooyu ñu mu koy wax même dafa jàpp dara parce que muus danga naan muus baa ngi nii doo ko woddu waaw xam nga kaawu Iran Ndao man dama si am sentiment dama ko yërëm dox nga yërëm ko feebarul dara jotu ko de feebar dafa bari façon comme ban ak ban bari na waaye li ma la mën a limal mooy xel dina feebar. Mhm. xol dina feebar ruuxu dina feebar jëmm dina feebar. Mhm. Ira Ndaw man dama gëm ne nit ku baax la ku bëgg lu baax ku bokk fu baax ku mhm. yàgg def lu baax te nit yàlla bu la seytaane mënalul dara yëg sa bopp mënal la dara bu la sa bopp mënalul dara cat mënal la dara. man nag personnellement Eh, it's my opinion. mën na nekk dëgg mën na ñàkk nekk dëgg suma xalaat mooy. cat moo jàpp Iran ndaxte eh, am na jamono bu yàgg moom ak Ahmed xalifa ñas la woon. Mhm. nga ne ma mane la nga ne ma mane la ñu jógee foofu mu ñëw ci biir këram waati waawoon mhm. di joteeg ñoom. Mhm. gaaruwaale dàgg ba tudd ay tur. mu jógee foofu yéegal niveau bi ba ci nenoo ma ganaar yi kenn nenu ma te moom moo gën a foor malaayka moom nit la du nen wàccee na niveau man dama la naan gaynde laa ngir mala jikko gaynde lañuy ñuy misaale nit mais duma leen la ne nen kon fu mu waxee nen dafa tuuti boppam dafa tuutil parce que man yàlla duma def nit nag may nekk ganaar bay doon nen d'accord mu jóge foofu ëlbatekuwaat ñëwaat ci xaste bi gën a rëy mooy toog ci kanami askan bi ci kanami jabaram yeeg doomam yi. Mhm. ne man daggal neen ma suma awra benn yoon. Mhm. ka ko dagg neexuma ma daggaat ko. Mhm. mu ne ngir bañ ko ko yab. waaye na xeetam. Ah, parce que man tey xam naa ne doomu Iran yi seen bàyyi ñaar yoon la joom naa ko tey moomu ko. <laughs> doomu Iran xam naa ne seen baay yoon la moo ko wax. kon yëpp naa doomu Iran su doon wax ma ma ne ko noppil sa baay ñaari yoon la jong. mais est-ce que yoon tamit dëgg la. mën na nekk parce que dafa am xaraf bu ñuy wax ngaamaan mooy cosaan sunna la. Mhm. dañuy rocci bagage yi dagg tuuti sunna. Mhm. léegi nag boo ñëwee jamono daara ñëpp dañuy simeeku comme armée rek. donc man mën naa laa ñaawal eh yow xarafoo yow xarafoo nga bañ ñu yeb la. nga mhm. dem ñu daggal la ko daggi docteur. mais bu doon daggi docteur leen ko njëkk daggal du mën a daggaat ñaareelu yoon. Ah, kon dafa leeralul. waaw man nii laa ko xalaatee parce que góor laa. donc ngaamaan day mel ni xarafoo. waaye su doon xarafi docteur leen xarafal Iran mën a tuta xarafal xarafi docteur parce que fu ñuy dagg. duñ ko am donc pour man mënoon na gën a leeral point boobu ne den ma xarafaloon xarafi nga man ma ñëw ci daara ji ñu may ree ngir yab ma. Mhm. ci suma ngor ak suma personnalité ma dem yaluwaan ba am def xarafi docteur ngir ñu xam ne xaraf na. Mhm. konoon polémique bi du yem nii. Mhm. mais ki ma xarafa ma neexut bañ ku ma yab ma xarafaat suma bopp yab lu nga sa jabar. parce que jabari Iran fu mu dem marché ñu xam ne jëkkëram ñaar yoon la jong. <laughs> donc su booba dafay dafay doon problème boo xam ne lam doon bañ. gaañu gaañu la. mu mujj dagg tànkam yi. Mhm. mais man suma conclusion ci mbiri Iran mooy conseiller. Mhm. ndax kuy fàttali nit ñi ci télé bi doo bañ ko la fàttali. dëgg la Iran na xam ne bañ koy jëlee kër baayam kenn xamu ko. Mhm. doonul dara yi tamit. nu mel kër Serigne Babacar Sy la. fa la jàngee fa la xamee fa la jàngalee te xayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama fa la gënee nit ñi. fa la génnee ba nit ñi xam ko na rus Serigne Babacar ci lu ko njaboot gi def. waaye mën a fayu rek fayu. moo tax man du ma kilifa kenn ci diine. si mhm. suma bopp laa ne. Mhm. ku ma ko dagaj ma ragaj la ko parce que su ma jikko fayu la. Mhm. sang du fayu yarekat du fayu. yonantu bi ko yàlla di yónni daf ko ne yónni naa la ci ñëpp ba fépp ba faw daf ko opéré ngir mu génnee fayu ci moom mënta fayu. kon iraan ndaw pour mu nekk bon exemple du lu muy wax mais lu muy jëf. d'accord te erreur bi muy def tam mooy dafay wax ne day firi alxuraan. di leble ci wax ji di ci fay bor leble mooy tagg nit ci waxam da koy def. mooy genre wayaan wala. wayaan mun nga ko firee wayaan ci niveau sénégalais. Mhm. mais ci niveau bi may waxee man wax duñ ci leble duñ ci fay bor da ciy faj mer. waxam yu rëy yëpp ci firi alxuraan la koy defee wala interview. Mhm. man maay nangam maay bokkoo ci. Mhm. laajuñ la soxlawuñ sa papa alxuraan leen bëgg nga firi firi ko te dem. ni nga ko déggee nga wax kuy jëriñu jëriñu yahdi man yasha wa yahliku man yasha mais le fait que mu tiim alxuraan yàlla ne day firi di ci leble di ci fay bor. ki ci tagg nit ak a gërëm mhm. mun na ko indil njuumte bi ndax alquran yàlla ko sàmm na ko bàyyi xel mhm. Mhm. na ko ñeneen bàyyi xel ba ci man ñaareel ba na xam ne su ko neexee dana muñ su ko naqaree dana muñ na muñal njabooti sëñ Babacar Si ngir teraanga bu mu am ci àdduna sëñ Babacar a tax waaye su toogee ci tele bi di dàgg santeek ñoom dafa am lu muy nuru te tam sëriñ Muntaxa kenn bañu ko kenn amul droit bañ ko ndax bëgg na yàlla yàlla bëgg na ko. Mhm. mais soo nekkee waa Tiwaawoon di xas waa Tiwaawoon di yëkkati sëñ Muntaxa di teg dafa am pro polémique booy créer. Mhm. dafay mel ni yaa ngi gënal kii ci kaw kii te sañ sëñ Muntaxa julliti la fi nekkal. pour ñëpp la la suñ kado la. Mhm. man gisuma waxuma jullit de gisuma ku am xel ku war a bañ sëñ Muntaxa parce que moom dafa am attraction li anglais doo attraction da ngay ñëw rek. nga mer sa nga xool ko mu ree rek nga ñëpp ñoo marchandoo tuddee ko mbégte mi. Mhm. man mbégte mi laa koy wooyee. dëgg la teyuma ko. Mhm. yàlla moo ko def nii xoolal situation yi lu mu réglé waaye yow soo toogee man kenn ganaar kenn danu ma du ma wujjoo nangam sëñ Muntaxa moo fi ne mooy lom daane sëñ Muntaxa du lom dal la ne. Mhm. lom dal la ne kon at bu passé kan la woon. lii du élection. Mhm. sëñ Muntaxa jaamab yàlla la. dëgg la ndax maqaama yu gën a rëy yu yàlla jox yonantu jaam la ko tuddee. Mhm. kon nen ko delloo foofu rek mu doon yonantu. Mhm. mais lom dala ne ci sëñ Muntaxa dama ko ne. d'accord yow la nga xam ne damay falu di folleeku du ma dara. mais sëñ Muntaxa jaamab yàlla la. dëgg la jaam bu yàlla gërëm mu gërëm yàlla. moo tax dara naqariwu ko ci àddina. ku am bàkkaar yërëm na la ku am tiyaabo ñee na la. donc le fait que ngay def polémique yooyu dafa xaw sew ci ku mel ni kilifa diina comme Iran dafa tuuti te dafay indi nooneel. parce que man bu ma la xasee ëlbateeku bisu moo daq wax télé animatrice bu baax la. Mhm. doo mer ngir bisu de da ngay mer ngir maa ngi lay tuuti. dëgg la na Iran bàyyi xel na ni muy waxee nit ñi bañuñ sëñ Muntaxa. Mhm. ñëpp a ko bëgg. Mhm. waaye waa Tiwaawan ne dañuy gis ne mu ngi xas seen sëriñ di yëkkati sëñ Muntaxa. et c'est très dangereux li may wax nii nag am am na conséquence mais je préfère wax ko. Mhm. di nga dégg keneen ko kii naa fekk la warta wax lii. Ah, mais benn murit benn murit du nangu. beneen murit yëkkati beneen sëriñ wàccee sëñ Muntaxa murit moom fayda mayu ko loolu. Mhm. moom Iran nag su amee personalité boobu moom la concerne waaye nag xam ne ñun. bëgg neen sëñ Muntaxa si suñ biir xool te muy dëgg parce que amuñ raison buñ ko bañee même buñ ko bëggoon bañ mayuñu ko. Mhm. du jikko leen ko war a bañee du kàddu. du jëf du juddu du maqaama mënuñ koo bañ amuñ droit bi amuñ raison bi he didn't give us any possibility pour ñu mun ko bañ mais am na lu muy defee dafa am ñu gàtt xel wala ñu manqué ñoo xam ne dañuy ñëkk parce que man ci société bi laa nekk lii may wax dama ko dégg retour la te loolu dafa tax nit ñi di la móolu donc cat boobu moo ko jàpp be moom kilifa guy firi alquran ku yàgg def gàmm ku yàgg def lu baax ku yàgg a taxawu lislaam toog ci kanami xale yi devant tout le nga ne da ngay defar jikko yi. Mhm. nga jël dénkaane yonantu yëpp ne dagg neen sa awra ñaari yoon. Mhm. ba pare ne xale yi diisut na ko woyofal. Mhm. loolu garaaw la. d'accord kon xam naa Iran li nga wax dina ci bàyyi xel ndaxte lépp lu génn ci ba sa Buzz dina ko seetaan ñu ñëw ci société sénégalaise ba léegi xam nga yow da nga nekk société ba pare xam ko mu bari ay sëriñ yoo xam dañ koy mbubboo alors que dañuy dóor dangay gis koo xam ne parfois danaan ay peese sa bopp noo tollu defal loolu ci nag jël xaalis bi encaissé ñenn yi nekk di dóor ak yooyu loolu ban jàngat nga am ci ci ci loolu daal. jàngat bu ma ci njëkk am mooy wax nit. mais ci biir nit ñi. Mhm. am na soose xeet la am na ku xees. Mhm. melokaan la. Mhm. am na ku ngaana wala ku gumbo wala ku gàtt bind la. am na ku mën a fen jikko la. am na ku am may yàlla ku yàlla gërëm la. mais dañuy wax nit ci biir sëriñ dafa am sëriñ bu ñuy wax euh, sëriñu lasraar loolu métier la. comme fii ma toog nii. menuisier bi moo ko defar def ci ay lu nooy ba pare ma mun ci toog ñu tuddee ko menuisier. micro bi am ku ko defar ñu tuddee ko euh, ingénieur ingénieur moo defar lii. am ku ñëw monter lampe bi ñu tuddee ko électricien. dafa am ci lasraar nag ngay def ñu tuddee la sëriñ ñëpp lasraar. Mhm. mais doo sëriñ business la. business la comme carpenter comme mécanique comme footballeur noonu la sëriñ bi nekkee. business ay catégorie la mhm. donc su fekkee ne business la business moom noo mën a defee stratégie ba sa business dox rek business ba nangu na ko. maanaam dóor daal. non pas dóor publicité du dóor. Mhm. dangay def publicité ne su ma su ma ban bi dafa baax nga dem fay DJ Boubs ah Adja mu def ci bu neex waa Adja boo ko defee dafa saf dafa nangam nangam. yaa ngi mhm. publicité pour mu jal sëriñ bi tam noonu la demee internet toog. maa ngi jaaru boo xam ne maa ngi nangam c'est normal. buñ ko mais mais mais loolu sëñ Cissé xam nga dafay andi polémique ndax comme ni ñu koy jëfee chaque jour da ngay gis ku la woo ne la sëriñ diw de defar na publicité yéen journaliste yéen a ko may promotion mais door na sama xaalis def na ma lii def na ma lii en fin de compte. noo xam nga est-ce que du déstabiliser ñeneen ñi. noo xam nga sëriñ Sénégal den ko xeeb daf fi amul daraja mais tey publicité Adja yi ñuy gis ak bouillon yi. Mm. ñaata góor la tere ñu tële dañ leen mës a attaqué. ah dafa am góor yu ci loolu. waaw. yow xam nga leen. Euh, même su ma leen xamee du ma la mën a wax diw léegi bàyyil ma jël exemple suma bopp. man tële tële naa ngir ngir ngir bion yi. suma bopp laay jël exemple. ndax mënu ma tudd nit waaw d'accord. Mhm. mënu ma tudd mais loolu mu ngi fii am. Mhm. ñaata ñaata publicité ngay gis ci garab ne dafay faj bu pharmacie nga dem jënd ko doo wér mais duñ leen attaqué. Mhm. ndax dañ leen protégé waaye sëriñ amut ndey. ba muy jàng daara ci mbedd mi leen ko doon taxawloo muy yenu pot di yaluwaan bi mu màggee ñu ne ko tekkiwoo dara ci société bi ndax munoo jiite jàngoo français toogal fële mhm. mu dem nekk nandite ba xam ne publicité dafa baax mu ñëw ñu ne ko da ngay dóor mhm. mais tey ñaata orka jënd naa fa ay rido ma ñëw teg mu yàqu mhm. dew ma te dañuy publicité seen rido yi baaxul mais ndax dama lay attaqué ne orca li muy jaay baaxul duma ko def. parce que mais mais c'est pas la même chose nag. c'est la même chose moo tax ma commencé yow ci ne métier la. Mhm. nee naa la menuisier bi dafa defar ban bi. lii turki laa leen jënde dama ñëw rek mu cuqate donc kon su ma su ma sukkandikoo ci li nga wax dañuy métier la kon ñoom dañuy nekk di jéem a tàndoos parce que tey bu fekkee da nga publicité comme wax nga léegi jënd nga garab nga naan ko faju la

donc noonu la rek su boobaa sëriñ bi day man li ma bëgg nga tontu mooy lan moo tax ñu leen taxé du dóorkat wax nga ne léegi métier la dañu xam ne publicité moom mooy andi ay nit parce que tey ku la jël def sa numéro téléphone nga ne mën naa faj di mën naa faj di balaa ñuy génn di jot sans appel mhm. mais est ñi lay woo di nga leen mën a satisfaire non xam nga laajte bi tontu woon naa ko ci biir mhm. dama koy jëlaat indiwaat tegaat ko sur table maanaam li may wax mooy métier la bu mu mën mhm. def ci publicité ngir nit ñi ñëw donc nit ki su demee jëndi fauteuil wala nga jënd oto bu baax. 50 mhm. millions mu accident. Mhm. doo dem attaqué Toyota. wala Range Rover ndax ñoo la ko jaay da nga accident. ci kaw tali am na assurance mais doo attaqué Toyota. Mhm. assurance bi dafa am lu mu la garanti loon mais ki la jaay machine bi 50 doo ko attaqué ngir dama ko doon dawal Fatick am accident. mais sëriñ bi laa la ne amut ndey. amut baay njiiti réewam uufut ko. gàddulu ko benn sommation ba muy jàng dara ci mbedd mi leen ko bàyyi di ko ba mu màggee ñu ne ko munoo bokk ci politique waru la toogal sa biir néeg. ah mais sëriñ yaa ngi politique léegi nag ñoo fi dàq doo sañ Cissé xam nga li ma lay wax. non dañuy gis ñoo xam ne dañuy toog di def ay émission di tagg Macky Sall ñeneen di bind ay lettres pour gis Macky Sall kon loolu ñu ngi ci politique bi. non ñoom mën neen ci nekk mais waxuñ ñooñu rek. dañuy wax mhm. globalement. Mhm. ko am na tey koo xam ne jàng na ba nekk cadre dafa seexlu politique. Mhm. dafay dem liggéey takk karoaraat ñibbi du laal politique te jàng na tubaab. kon waxuma ñëpp mais dama la bëgg a wax ne sëriñ bi den ko uufut léegi tey mën neen keneen publicité lam la jaay baaxut du mhm. problème ndax sa normal mais munoo nangul ngant sëriñ bi ñaanal na la la nga bëggoon gisoo ko loolu dóor nga ko tuddee mhm. mais avocat bi nga fay sa xaalis mu plaider la bañ tëj la ci kaso ko fukki at ak ñaar moom dóorut ah mais sëñ Cissé nag bul da ngay comparé nag loo xam ne comparable na foofu moom doo fa d'accord ak yow d'accord lu tax d'accord man nee naa la métier la loolu mooy dëgg loolu la mhm. wax naa la ne métier la ci lasraar mhm. da koy jàng boo jëlee Faatiya def nangam lii lay def nga jàng ko mën ko mhm. def gi moo la war waaye nangu gi ci loxo yàlla la nekk léegi nag avocat bi dafa jàng bañ jox ko kayit mu ne avocat la dafa lay layal pour nga mhm. mujj mhm. nga dem ñu tëj la fukki at ak ñaari kas mu dem continuer liggéeyam du dóor mhm. waaye sëriñ bi nga fay benn cinquante mille nga ne ko suma boppee métti mu defar la bopp bi wéragut amagut sax ñaari fan nga ne ah man daal ma ko gisoon Dakar bés kii day fen daf ma dóor cinquante mille mais avocat bi nga fay ay millions mu plaider la ñu tëj la dóoru la école bi ngay fay sa doom xaalis bu bari mu war a examen amul examen moom dóorul la jàngaluñ ko. Mhm. te tey soo joxoon sëriñ pour mu defal la kiis nga neexeel problème am na nga dem ci internet maa ko jox 2000 francs pour kiis. Mhm. su ma doom amul examen. Mhm. mais école ba nga doon fay 6 ans pour mu jàng amul examen moom c'est normal sëriñ leen uufut. wax jii may wax nag taxul ma bokk ci man seexlu naa toog ci internet na mën naa nangam. nopp du ko dégg baat na tukki. ah waaw mais sëñ bi yi ngay jaay nag pour nga xam ne seen bopp. loolu jaay la. pas ñëw ne sëriñ laa mën naa nangam ne naa la businessman laa ci commencement wax ba. Mm-hmm. mais loolu dinañ ci dellu si waat. waaw mais lu ma bëgg a wax mooy. lii may wax nekkul dama leen di défendre parce que ci laa bokk. Mm-hmm. man kenn ci Sénégal depuis mille 2012 mënut a wax ne yëkkati na nangam jox ma ma ñaanal ko. waaw sama yu bari nag mun li nga def nii man dama la ci sant ci gërëm parce que li nga def nii am na sëriñ yu bari bu ñu doon fukk tey ah, juróom-ñeent yi sañuñu toog ne lekk ma xaalisu diw. wala nit woowu ma nee ma ñaanal ma lekk sa xaalis bindal ci commentaire. ayca loolu depuis 2012. Mm-hmm. la ma sénégalais gëj a jox xaalis ne ñaanal ma. Mm-hmm. ba tey du ma ko def. parce que dama dem ba gëm ne su ma lay ñaanal naa ñaanal suma bopp. dëgg la moo tax ci kër gu baax laa dëkk oto bu baax laay dawal su may soxna dañoo rafet. Mm-hmm. lu ma neex laay sol yàpp rek laay lekk. parce que maa ko liggéey. <laughs> loolu am na solo kenn du ma weexal. Sénégal dama ko seexlu. soo ma ne ñaanal ma la baax na. jublul yàlla ma jublu yàlla. wala nga ne ma ñaanal ma ne naa la ñaanal te yàlla tax. bugguma sa turu yaay bugguma xam si loo ne. ku ko ku ma fay rek da ko bind commentaire. ngeen jël numéro bokk ci ñi ñaan joxe nag beeg affaire yooyu donc doxuma ci donc nekkul dama leen défendre parce que ci laa bokk. bokkuma ci dama ko mhm. séexlu. Mhm. su dee mën naa dara li suma maam nekkoon ak suma baay ci laay nekk ñi ma gëm fekk ma fi. waaye du ma toog internet mukk mën naa seet kaay leen ma nangam kaay leen ma nangam dama ko séexlu bis bu ngeen ko defee yóbbu leen ma bis bu ngeen ko gisee yóbbu leen ma. dalal kenn xam leen ne feebar naa. Mhm. wératuma en temps normal duma ko def. parce que dama ko séexlu. comme am naa xam-xam mën naa luy joxe nit wërsëg. naa ko sangoo liggéey. Mm-hmm. am naa bayre naa ko sangoo siw. am naa kaaraange naa musal suma bopp. léegi lu may toogee ne mën naa nangam soxlawu ma ko. tey su ma demoon ba dama bëgg a nekk sëriñ caméra yi soxlu ma leen. Mm-hmm. su ma turu yàlla lay jël jublu penko yàlla moo moom xol yi mu indil ma leen force. neex ñëw naqari ñëw xam mm-hmm. naa yoon bi. mais bokkuma ci. d'accord businessman la registre suma compagnie Gambie Sénégambien la. man maay di definition of bi su ma yaay sénégalais la man gambien la ma juddoo Gambie yaroo fa takk sénégalais ñib si Sénégal. Mhm. ñaari dëkk yi fu ma neex dem. Mhm. mais su liggéey jotee ma dem Gambie dugg ci bureau yi am appel d'offre ñëw suma mag yi ñu fournir ma ma dem jël suma xaalis ñëw ànd ak sumay jabar fu ma neex ci àddina. bëggee ba suma xol sedd jaamu yàlla ñëwaat toog ci lii laa ne waaw. <laughs> léeg-léeg ma dem Five léeg-léeg damay dem Wally de ah, dem Sidi Diop sëñ bi bul dugg ci nag ci àdduna la bokk waaw ci man ci àdduna laa ne waaw mais sëñ bi am na ko fi waxoon nag ñi dem Five ñooñu seen place safara la de waaw kii la Moustapha Dramé Moustapha Dramé waaw suñu xarit bi waaw moom dafa xam nga li ma neex ci sëriñ si léegi mhm. dañu xam communication phénomène boobu ba mu tuddee ko spécialiste en safara tax mm. na ñu xàmmee ko et j'aime bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, dafa doon wane boppam. waaw dama bëgg sëriñ si di siiw. man mm-hmm. ñooy suma mbokk ñoom laa am. donc Moustapha Dramé le fait que mu ñëw kii safara kii safara tax na ñëpp xam ko. gisoo dama tudd safara rek nga xalaat ko. ma xalaat ko dama tudd faay rek nga xalaat waaw donc bi sëriñ si di def maa ngi leen di encouragé man j'aime bien damay gis footballkat yi di siiw ah man su ma baay sëriñ la su ma yaay sëriñ la su ma maam sëriñ la mm-hmm. sëriñ siiw moom a gën a mm-hmm. donc man tam damay bëgg ñu siiw Moustapha Dramé moom <laughs> xamul sax fu mu jëm bay xam ko jëm safara ko jëmul safara loolu dara ko ci leerul waaye taalibi bu baax la maa ngi koy di ko nuyu sëriñam dama ko bëgg mm-hmm. dama xam ci moom lu tuuti kon Moustapha Dramé xamut ci boppam daara bay xam ko jëm safara maa ngi ko dégg mu naan su ma doon dem safara ak su ma mbuus ku ko ne dee ci mbuus <laughs> xam nga yooyu du lu aay it's something nice you know mu entertain nit ñi kafre mais nag day waxale ay kàddu dëgg ci ron mhm, mhm, mhm, dëgg la mais yaa ngi doon wax ne exemple bi nga ko joxe sànq ne euh, góor yu bari dañoo tële ci télé boobu yow dafa mel da nga leen bëgg dimbali parce que am na benn mbir boo xam ne yaa ngi koy jaay nekkul promotion mais lan moo la motiver ba loolu nga koy defa di ko jaay ci sa business mm, xam nga tey tey dafa am lu nit ñi xamul. muy lan. yaram day tilim nga raxas ko. xool day tilim nga tudd yàlla. Mm-hmm. wërsëg day taxaw nga saraxe mu ñëw. Mm-hmm. mais kattani góor importance bi moom sax ba dama foog ne ba tey nit ñi xamuñ ko. ah oh oh jëlal lislaam. Mm-hmm. lislaam boo gàttalee tuña leen la ooyee matoo imaam. boo gàttalee maanaam. doo imaam. kon dafa bokk ci li nga xam ne dañ koy fale imaam. waaw li ma wax ni fiq la nit ñi jàng neen ko. fiq la waaw. waaw mais sëñ bi kan mooy mën a xam ba xool ba xam ne kii. yow mi jàng yaa ragal yàlla xam ne sa <laughs> dafa gàtt nga ñu rafetal ko. waaw parce que dama wax comprendre diine dafa war a leer. Mhm. su doon suma waxi bopp dama koy moderniser mais l'islam la ñuy wax. dëgg la amul kers maanaam. <laughs> tuñe la tudd tuñe matul imaam. ok kon nga xool. nga nga gis farataay awra góor. Mhm, dafa am importance. boo takkoon jabar sëy bi neex lool nga am dépense nga yoom sëy ba mën na tas. dëgg la que mënatoo maanaam kër ngéwél gi tas na sabar gi mënatoo koo tëgg. effectivement. baarambay bi dañ koy. dañ koy dañ koy baarambay waa day taj temps mu wàcc ñu jàll ci leneen. sëy bi mhm, day tas. Mhm. léegi li gën a fort ci lislaam mooy julli. soo gàttalee mënoo jiite. kon war nañu xool attention lan mooy njëriñi awra. dafa am solo. ñaareel ba du yax siddit la ak deret loolu li ko composé dafa bari. ndax tey man góor la buñ ma reyoon autopsie ma duñ gis sperme ci man. mboolem juróom-ñaari ndox yu nekk suma yaram ba ci rongoñ dafay bokk ci sperme. d'accord sa dëtt bi da ciy bokk sa deret da ciy bokk sa yàpp da ciy bokk. léegi dafa am yaxruju min bayni zulbi wa taraayi bi sa dënn bi ak sa ndigg la bànneex war a jóge yaram bi yëpp mel ni courant commence mu togg sperme mu génn. Mhm. te loolu foog awra bi taxaw. dafa war a gudd dafa war a dafa war a jot baaraam bu ñuy joxoñ dafa war a am solo. dëgg yaa ngi dégg. Uh-huh. léegi su awra boobu gàttee nooy mënta dem ah. dafay mujj métti kon yu Moustapha Dramé safara nga jëm. <laughs> Ah, <laughs> kon baa ñi dem safara du ñu bari parce que yaa ngi koy wax dafa nekk phénomène boo xam ne dafay dara la euh, góor ñu ci lu bari te xam nga dafa lu keer sa dama tase ak benn loolu laa doon ñëw wax sa maanaam tey bu mhm. nit ki xamee ne dafa tilim maa ngi dem sangu ji mhm. da nga tilim mhm. maa ngi dem wirda ji amul problème xol bee tilim mais tey doo mun a wax ëppoon li ne man damay gaaw a daanu munoo ko ci Pawlish Mbaye laa ko njëkk a déggee ci mim réew te nit ñi jëluñ ko sérieusement si si jëluñu ko sérieusement waaw mais tey gaaw a daanu mën nga am stress mën nga dem tàng lool tiim sa jabar ñu ne la sa yaay gaañu ne wala nga dégg ay balu fetal affaire bi wàccaat ndànk mhm. ndax day luus di jóg mhm. léegi biir bi mën na am ay jàngoro ba doo mën a dem parce que biir dafa bokk ci luy dimbale góor mhm. sa deret ji mën na diis doo mën a dem donc composant yëpp boole ko nag waruñu woon a am kersa ci ne damaa gaaw a daanu ñett am na koddal bu dëgërul gaaw a daanu ak awra bu gàtt benn baaxu ci ñett yëpp problème la ñett yëpp problème la. lan mooy solution bi. solution bi bari na. waaye man am naa garab goo xam ne fii wax naa ko fi fii la mujj. Mhm. képp ku ko jënd ci Sénégal. gisoo résultat yi garab bi. Mhm. da ngay ñëw da ngay ñëw jël sa xaalis. Mhm. sérieusement dangay ngay jël sa xaalis ma jël suma garab te mosuñ ma koo delloo. te yaa ngi koy jaay bu baax maa ngi koy jaay. ay ñaata ngay jaay chiffre d'affaires bi ay ñëpp. ay 5000 butéel chaque mois. non 5000 bouteilles par mois. oui kon da bëgg wax ah waaw kon 5000 ñoo xam ne. non dafa tuuti parce que huit dix dix huit millions normalement 4 millions góor war na ñoom te 4 millions góor 200000 góor rek a mën a taxawal bu dëgër. sëñ bi dañuy suma loolu la. foofu lañ lay bàyyi nga tàggatoo waale. waaw donc di gërëm waa dakaar Buzz xa yàgg naa seetaan seen mbir. Mhm. maa ngi yaakaar ci yàlla mu dimbale leen ba ngeen nekk télé bu mag. yow aussi sa liggéey yàlla gën la ci jàppale suturaal la cat bañ la jàpp comme ni mu jàppee Iran Ndaw mhm. cat bañ la jàpp comme ni mu ma jàppee mhm. parce que cat moom bu rayul rek semmal te bu la musalee rek mën nga yegg fi nga war a yegg mhm. àdduna lu nekk escalier la foo toll rek am na lu nekk ci kanamam waa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam ñu ngi leen di sant ñu ngi doon seetaan tam di leen gërëm ah, ci teewlu bi mu nekkoon Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ah, di waxtaan ak moom nag ci lim ko tënkee ci lu bare bari ah, ñu leen di sant di leen di gërëm dig daje beneen yoon ak beneen invité.